maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tuur ak sa sant man Alioune Fall laa ñu may woowee Alla président des Damel de Tivaouane ñu ngi leen di remercier ci taxawaay bi ak teewaay bi yëpp di remercier bureau bi nga xamante ne si ni moom lañ nekkal di liggéey depuis boobu ba léegi di remercier techniciens yi di remercier joueurs yi ak euh, invités yi fi nekkoon yëpp tey boo leen gisee lii tey li ko waral mooy Damel moo doon euh, moo organisé woon cérémonie tey de démarrage présenté joueurs yi équipe bi présenté waale objectif wu ren yi euh, moo taxoon ñu dajaloo fii nii y objectif bi bon ren euh, lenn la mooy euh, Tiwaawan bu booloo boole seen ay force doomu dëkk bi pour ndax équipe bu Damel fi mu nekk jàpp nañ ni nekkul place am ñu ko fi jëlee nag yóbbu ko fi ñu jàpp ni mooy place am mooy ci ligue professionnelle bi objectif bi ren moo nekkoon monter en national une ba pare au moins ñu am aussi ay euh, ay ay ay ay ay sélection équipe nationale am ay joueurs yoo xamante ni si nii au moins ren bu championnat bi jeexee ñu dégg leen ci ci ci ci ci ci ci yeneen dëkk yi ñu ñu ñu pro loolu mooy li nga xamante ni si moo nekk objectif bi ren di ci woo bépp doomu Tiwaawan nag ndaxte am na loo xamante ni benn nit munu ko ñaar nit munu ko ñett munuñu ko mais yaakaar naa ni Tiwaawan bu ñu boolee suñu ay doole xajul ci lii quoi. Mhm. bon ba nii nii nii c'est pas encore officiel mais am ñu yaakaar bu baax à quatre-vingt-dix pour cent que ça sera à Minam. Mhm. effectivement ren boo xoolee équipe bu Kaolack Kaffrine ba benn équipe bu nekk Passy ak bu nekk presque Tamba ñaari équipe bu Dakar lañ bokkal poule ak euh, mooy Cambérène ak euh, Asfa wala FC Malika ak Asfa muy trois trois équipe bu Dakar lañ bokkal poule yi ci des yëpp pratiquement côté bële la bon am na ñu ni euh, Mbaye wax na ko secrétaire général bi nee na bu Thiès yi yëpp pratiquement zone boobu la ñu yéegee d'accord ñun aussi dem nañ fa ñu ngi ñaan yàlla ñu yéeg mais aussi bi ñu xoolee bëri na ay charge trop trop trop trop trop parce que transport bi yoon bi gudd na te booy dem au moins pour nga performant di nga def ay au minimum deux jours parce que foog nga dem mën a noppalu pour euh, jour yi buñ ci jour bee ñu nekk au top loolu aussi ça demande beaucoup de moins moo tax ñuy woo euh, waa Tivaouane yëpp ñu ñëw jàpp ci équipe bi pour loolu ñu mën ko réussir benn travail bu am solo boo tamit vous avez réussi à ce que tous les euh, tous les techniciens yi si ko Tivaouane ngeen regroupé leen ci autour de Damel ñu gis aussi que ni bu ñu gisee équipe bi ñu composé dafa am mélange bu jeune ak ancien loolu lépp wane ne kon objectif bi ngeen a bi ngeen bëgg muy monté c'est possible est ce que yéen seen wàllu bopp ak la population information bi war a jàll que ni yéen vous avez l'intention de faire monter l'AS Damel euh, message boobu jàll na ci la population ñu nekk ci seen ginnaaw waaw xam nga pour man message bi nga xam te moo gën a fort mooy l'acte te yaakaar naa ne ñu ngi du du ñu soxla di dem ci nit yi di leen wax kaay leen kaay leen kaay leen mais am na liggéey boo xam te ne bu ñu war a liggéey bu ñu ko ànd ci ak suñu suñu frères yi mooy joueurs yi bu ñu defee résultat rek nit ñi dinañ ñëw bon génération boobu nga wax aussi conflit bi nga xam te ne am na ay mag am ay ndaw aussi loolu moo baax ndax sëñ Babacar dañuy mm, jataay boo xamante ne si mbooloo bu ay mag kese nekk doyu ko bu ay ndaw kese nekk doyu ko mu ne ñu laaj ko ban moo ko doy mu ne bu ndaw nekk ak ay mag yàlla dimbali nañu am nañ loolu kon ñi ngi am njort bu rafet tey ku fi ñëwoon ku fi ñëw xam dara ci sport Tivaouane presque daanaka ñi ko ŋànk ñëpp ñëpp ñëpp ba mu sosoo ba tey te nekk fii Tivaouane ñëw nañ teew kon loolu yaakaar bu mag a mag a mag lañ si am hmm. merci beaucoup